Ramadan Moubarak. Les supermarchés Low Price by Eudika vous accompagnent durant tout le mois de Ramadan avec une large gamme de produits, plus de 10 000 références, des articles de qualité à des prix imbattables. Faites toutes vos courses en un seul lieu. Des produits alimentaires, des vaisselles, des produits de maison, une boucherie pour vous servir la meilleure qualité de viande, sans oublier les fruits et légumes bien frais. waaw daagul biir supermarché low price bu EDK fekk fa ay panier koor yu am maanaa si njëg lu yomb fayal ak kàppay am si ay remise yu am solo teg si dool li mën a bokk si tirage au sort pour gagner ay lot yu jékki dayu ak kàppay mooy su sukkaru koor les supermarchés low ay mbégte ak bànneex kese la les supermarchés low price de EDK vous souhaitent un bon ramadan kooru jàmm